السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين ومن تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ak ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara te di leen baal wax di leen ko baal te di leen ndokkeel ci guddi yi nekk comme ni ñu tàmmee di ko defee rek bu ñu paree ci benn buntu ñu daal di koy tënk-tënk bu gàtt ndax ñu xam li ñu doon way li muy neex neex lekk lan la ginnaaw bi ma Bushayri yi waxee ci buntu juróom-ñetteel bi ci jihaad bi nga xamante ni moom la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jihaad mu jógee fa tamit dem ci buntu bi ñu nekk tey muy fukkeel bi muy almunaajaat wa arad wa aradul xaajaat mooy ci digganteeg yàlla di ko wax ay soxlaam waaye itam di wàccee boppam di dammat boppam di wax ne ndeke man li ma nekkoon yëpp du noonu ndeke lii ma nekk mooy ngën way nekk loolu moo loolu mooy yoon bi mu waroon nekk ak aussi tamit di gaaral ay xaajoon ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu wax ni yaa akramal xalqi maa li man aluudu bihi siwaaka inda xuluulil xaadisil amin yi woon naa yow mi gën gi mi ndéef di wax ne amuma keneen ku dul ku ma mën a wéeru ci su su su su aaju ñëwee aaju bi nga xamante moom matal ñëpp muy su deeñee ba yemal xiyaam ñëw ku nekk di nga soxla koo xamante ni moom ngay wéeru mu xettali la waaye man bu say nii day aw ma kenn ku dul Muhammad saa sallam fu mën a wéeru ku dul moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaa sayyidi ya abal bahra mun xilana mimma naqaafu min al adraari wa siqami yow yonent bi yow mi nga xamante yaa ñuy xettali ci lépp loo xamante ni moom la ñu ragal ci ay lor ak ay ak ay ak ay ak feebar ak lor ak lu mën doon man de may xettaliku ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ha ana bil baabi la abxi bikum badala xatta tufarrija ma qad haala min himami yow Muhammad yëgal ne man de maa ngi taxaw ci sa buntu de sàkkuwuma keneen kuñ la mën a remplacer man yow kese laa soxla nga daal di may xettali li li ma soxla taxaw ci sa buntu nag doo ma dem mukk loolu da nga ma koo defal muy xattaatu farija ma xada xaala min himaami loolu da ngaa wuñ ñi li nga xamante ni moo moo moo ma tere nelaw mooy sama itti hajjil ixaasata abdin yastajiru bikum yaa rahmatan ursilat min rabbina alxakami mu ne yow yàlla hajjil na nga na nga gaawe ixaasata abdin xettali jaam bi nga xamante yastajiru mu ngi dëkkaale bikum ci bikum ci yéen yaa rahmatan woo naa yërmande usrat bu ñu yónni min rabbil hakim bu jógee ci suñu borom subhanahu wa taala mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ne yow yàlla daal ma ngi ñaan itte yi nga am yi ma am ak soxla yi ma am ak jëf-jëf yi ma nekkee damaa bëgg nga gaaw ñëw xettali ma ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom dañ ko yónni ngir mu nekk yërmande ci humanité bi sallallahu alayhi wa sallam lil xalqi raxam bi abdin daaqa mazhabuhu illa ilayka sari'an farijal himami yow yàlla na nga yërëm mbindee fii ci barke sa jaam bi nga xamante moom Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala boog na nga yërëm bi ab di jaam bi nga xam ne daax dafa xat mazhabuhu mooy dem waaye moom la yoonam mooy ki nga xamante ne ay ja ay jamono da koo jàpp ak ay jafe-jafe aduna maa ngi ñaan nga daal di koy gaaw daal di koy yërëm dégg nga mazhab illa ilayka sari an illa ilayka farijal himami ndax feneen fu mën a dem ngir mu sàkku koo xamante ne mun na ko xettal du ko fa am ku dul ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon li mu wax ne lépp da koy dafay xettaliku ci darajey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma amma baabaka abdun yastaxiisu bikum illa wa naala alladi yabgi bila wahami ma amma amul kenn ku mën a jublu baabaka yow yow yow sa buntu yow yow yàlla abdun jaam yastaxiisu bi xettal bikum ci yéen illa wa naala alladi lu dul am na la nga xam ne yabgi da koy sàkku bila wahami lul def def leen mooy képp koo xamante daal jublu na ci buntu yàlla jublu ci buntu Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sàkku ko xettali dina am li nga xamante ni moom lay sàkku te loolu amul benn sikki sàkka mooy képp ku jublu ci buntu Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ko fëgg di sàkku ak xettaliku daal mooy am njëggal ci barkeem falaa bud di nga ko am imam Bushayri ne haashakumu dahra an yulqa nadinakumu yaxtaaju lil xayri jud yaa malja addaini haashaakum jomb na jomb na ci yéen addaxara an yul addaxara jamono an yul xaa ñuy fe an yul faa ñuy fekk nadirakum ku wàcc ci yéen maanaam suñ ne woon par exemple daal kër Muhammad sasam kër la ko xamante ay gan di fee wàcc si ñu ne jomb na nit di wàcc ci sa kër doon la gane si di li mu doon sàkku amu ko dégg nga am na yaxtaaju il xëyri jut yaa marja zaymi kon ku wàcc ci sa kër Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ñëw ànd ak jafe-jafeem ànd ak aajoom balaa mu fay jugee daal dina dina faju kon jut tabeel yow Muhammad yaa marja zaymi yow mi nga xam ne yaay wéeruwaayu ñi nga xamante ne ñoo ko aajowoo ولم يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم ولم يضيق دقات مكو رسول الله جاهك سدرجة يا محمد سجاح سدرجة دمسا دمسا خط وياتنا لول كنلا إذا الكريم نم يالا تحلى مغي تقايو باسم منتقم تترو منتقم yàlla su demee bu nar a fayantoog jaam yi ku nekk li nga def mu daal la koy fay loolu nag dafay génne turu arrahim teg ko fële mu jël pour turu almuntaqim mooy ki xamante ni moom mooy fayowante su yàlla demee ba jël mbubb fayowante daal di koy sol nag ah su boobaa day yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ci sa daraja rek la ñu mën a xettali ko yow kese ñu mën a xettali fa inna min juudika dunya wa darataha wa min ulu mi wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami dégg nga aduna su amee ak alaxira mu ngi amee ci sa barke yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fa inna min juudika ci sa tabe yow muhammad adunya ci la aduna amee wa darat ak wujjam suñu ne aduna ak wujjam mooy aduna ak alaxira wa min ulumika ci sa xam-xam yow muhammad ilmullahi wal qalami ci la law mu amee ak xalam ak xam-xam bi am yépp ñu bind ko ci law ak ci xalam lépp mu ngi amee ci sa xam-xam yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa nafsu la taqnati min dallatin adumat inna alkabaira fi lxufraani kallamani mu ne yaa nafsi yow sama bakkan comme ça nit ki jëf bakkaaram bakkaaram bëri imam Bushayri mel ni moom moo jëf bakkaar yu bëri yooyu mu ne yi bakkan bi day dem bul dem ba naagu ak say bakkaar lu mu bëri bëri say tuuxi doon lim bëri bëri bul dem ba naagu ne yow daal forcément da nga dem sawara ndax yow a amoo kenn ku yaakaar mën na laa jéggal mu ne laa tax na ti bul naagu min dallatin ci ay ay tarxiis ak ay bakkaar azumat yu rëy maanaam say bakkaar yu rëy bu mu tax nga naagu ndax innal kabaa'ir naka bakkaar yi lu muy rëy rëy rëy fil ghufraan ci njëggalu yàlla sunu borom kan la may mu ngi mel ni ay ay tepp tepp ay tepp teppi ndox wala boog comme ay bakkaar yu ndaw ndawaan da koo misaal ay tepp teppi ndox mooy ay bakkaar yu ndaw ndaw comme ça say bakkaar yu mu bëri bëri bëri bëri Muhammad sallallahu alayhi wasallam yërmandeem su ñëwee ni mu koy effacé mu ngi mel ni muy effacé bakkaar yu tuuti tuuti yi mu ne la alla rahmata rabbi hiina yaxsimuha yaati yaati ala hasabil isyaani fil qisami yàlla àlla xëy na yërëm ànd na yàlla suy ñëw da koy séddale lan la koy séddalee ku nekk sa mooy yàlla lu mu toll ak sa ak ak say bakkaar lu mu toll mu ne yàlla daal su demee ba indi yërmandeel nekkul da ñëw ñëpp yemal leen waaye déedéet yow mii say bakkaar dafa rëy kon say sa yërmande yaay ëppale ndax sa bakkaar moo toll wa rahmatullahi kullal xalqi qad wasiat من فقير ومطيع زهيد بالغ يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد أجمعكنا ورحمة الله كل الخلق قد وسعت لفقير ومطيع زهيد أجمعكنا يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد ملكنا ورحمة الله كل الخلق قد وشعت من فجير ومتين زهيد ملكنا يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد ينبو دفلني يا ربي ذا الذنب ذا جئنا عن النار يا الله يا ربي ذا جئنا عن النار يا الله يا ربي يا رب ذا جئنا عن النار يا الله يا ربي توفقنا حج مالك يلا عو يا رب يا رب تعزنا آل النار يلا عو يا ربي زادنا آل النار يلا عو يا ربي زعزعنا آل النار الله يا ربي زعزعنا يلف دفلني من نوري نيل عننا من أنوار من نوري نيل عن من أنوار من نوري نيل عننا من أنوار من نوري نيل أجمالكنا من نوري نيل عنا من أنوار من نوري نيل عنا من أنوار من نوري نيل عنا من أنوار من نوري نيل عنا من أنوار kon mu ngi wax Seydil Hadji Malick nee na yërmande yàlla ñëpp lay matale moo xam ku baax la moo xam ku def na ko suñu noonu la yërmande yàlla mën naa matale ñëpp imam Bushayri ne yërmande yàlla boobu noonu su koy séddale di koy séddale ku nekk ak sa a ni nga ko aajowee mooy sa bakkaar ni mu toll say bakkaar su baree su lay ciblé set lu bëri ndax mën a effacer say bakkaar yu bëri say bakkaar su néewee su lay jox du lay mën a jox lu tolloog say bakkaar mu effacer la ko ndax yërmande yàlla yaatu na إمام بشير يا ربي وجه الرجاء غير منعكس لديك وجه الحساب غير منقرب yow yàlla na nga def samay samay yaakaar bi nga xam ne am naa ko ci barke bu ma sasam yàlla bu mu tas waaye itam sama ëllëg su ñuy réglé samay place na nga fexe ba li ma li ma li ma am xayra mën xarim yi bu mu nekk lu am lu ñuy sànni la mooy li mu am ci lu yiw muy dem ba say bàkkaar baree baree bare ba day mujjee muus sa jëf yu baax mujjee koo lekk am bakkaar su demee ba egg ba ba mu toll foo xamante ni mu ëpp sa jëf yu baax dañu moom bakkaar day mujjee wëlbatiku di fay sa li nga xamante ni mu yore lu mel lay àq ak yu mel noonu kon day mujjee bakkaar bi mujjee lekk sa la nga mujjee def lu baax lépp waltuf bi abdika fi daarayn inna lahu sabran ma daa taduhu l ahwalu yanhasiru mu ne wa altuf na nga na nga ñeewtal koy ñeewtal bi abdin ci jàmm bi nga xam ne fi daarayn inna lahu sabran mata taduhu l ahwalu yanhasiru mooy na nga ñëwaatoo sa jaam bi nga xamante ni su ci àdduna ak àllaaxira yëpp ak tartar yi li muy li muy li muy métti métti métti yëpp su koy muñ su demee boo yàgg dootul mën a muñati mooy nit dafay dem ba tollu foo xamante ngay am benn faiblesse affaire day métti tartar yi di ñëw di ñëw di ñëw ngay muñ a muñ a muñ a muñ ba ngay mujjee craqué léegi dootoo mën a supporter yu bëri moo tax mun ne yow yàlla nag ma ñeewtal ba lu mën a ñëw te yow mën a am kattan pour mën koo muñ wa adan li suuf bi salaatin minka daimatin ala nabii bi mun bi mun hallil wa mun sajil léegi nag mu ngi leen di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne na nga digal ay ay niiru julli ci yonent bi maanaam niir yi ngay gis muy taw na nga leen digal li ñu taw lépp nekk julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa imatan doon lu sax sax mu mu mu nekk lu sax nag ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mun hallil ñuy jotti ak taw wa mun sajil ak ba tey ñuy daal di sotteeku mooy asmaan bi daal li muy taw ci ay toq ndox yëpp yal naa yal naa ko def mu nekk julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag bu mu arrêté bu mu dagg mukk maaran naxat azabatil baani riixu saba wa atrabal isa haadil isa bi naxali loolu nag fekk gàncax bu ñu wax baan baan benn gàncax loo xam daf nekk ci àll bi des fois su ngelawee da ngay gis car yi ni muy laalaan di def ay kiic kiic di woy mel ni affaire bi day xaw a neex mu ne loolu fekk mu ngi am mooy soo demee ci àll bi nga dégg garab yi seen car yi ni muy laalante muy kiic kiic loolu fekk mu ngi am rek yàlla bu yàlla bu julli ci islam dañ di wàcc ci moom naka noonu tamit xam nga arab dañoo baaxoo woon nit suy sàmm ay gëléem da koy woyal mooy day jiitu di woy woy yu neex su ko defee gëléem yi topp ci ginnaawam mu loolu tamit fekk mu ngi am rek sàmmkatu gëléem bi jiitu di woy woy gëléem yi topp ginnaawam loolu fekk mu ngi am rek yàlla bu julli ci islam deñ di wàcc ci moom muy maam daal na na na na na sa na maanaam na julli gi sax ci moom ba yowmal qiyaam ndax loolu du mos arrêté نبي أتى بالهدى والكرم صلاة تتم وترفع إلى رياض الأنام وآسر الهمم
اللهم صل وسلم على أيها
الحرمى أكوان فصل وسلم وسلم على نبي الأنا بالهدى والكرم اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم اللهم صل وسلم على نبي العداء الهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وآخر الأمم
اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم كرم صلاة تدوم وتلقى إلى قيام الأنام وحاصر الأمم اللهم صل وسلم على نبي الأتى بالهدى
اللهم صل والكرم
وسلم على نبي الأدب الهدى والكرم اللهم صل صل وسلم على نبي الأتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى أيام الأنام وأجر الأمم
kon summa rida ala abi bakrin wa an umarin wa an aliyin wa an usman del karami wal ali wa sahbi summa tabi'ina fahum ahlu tuqa wal nuqa wal xilmi wal karami moom imam Bushayri mu ngi wax ni yàlla yàlla gërëm ki ñuy wax Abu Bakar mooy saxaaba yi Omar Ali Ousmane ñi nga xam ne ay borom teraanga lañ naka noonu tamit ak mbooleem saxaaba yi ak mbooleem taabiin yi tamit ndax ñooñu kat borom ragal yàlla lañu waaye borom set wicc lañ ci ay bàkkaar waaye itam borom lewet lañu waaye itam borom yi teraanga lañ ñoom saxaaba yeeg ñi ak seen taabi ak seen taabi taabiin يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم yow yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga jotal sunu sunu sunu jubluwaay ci téere bii bi nga xamante ni bi bi mu commencé ba léegi ñu ngi koy woy li nga xamante ne ku nekk moom moom mooy ci sa maqsad mooy sa jubluwaay yàlla ñu ngi lay ñaan ci barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu jot ci waxfir lana ma mada ya waasa alkarami waaye itam lépp loo xamante ni ay jumte la ay bàkkaar la yoo xam ne def nañ ko ci lu lu lu passé ña ngi ñu ko jéggal yow yàlla mu tedd ñu ko baax واغفر إلهي لكل مسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم نغا جيغل يالا مبولم جوليتي ci li nga xam ne ñu ngi koy jàng ci masjidul aqsa muy ca xuds ak ci xaram yi ak ci xurum bi nga xamante ni moom moo nekk ca ca makkatal mukarama fekk ñu ngi way rek di jàng burd bi ak fu ñu ko mën a wayee ak fu ñu ko mën a jàngee ci adduna bi rek ñu ngi lay ñaan nga jéggal ci ndax barke burd bi rek nga jéggal ci mbooleem jullit ak fu ñu mën a nekk adduna bi bi jaahi man baytuhu fi dayfatin haramu wa ismuhu qasamun min adamil qasami li ñu ñaan nag ñu ngi koy ñaan ba tey ji barke ki nga xamante ni baytu bu këram gi wala néegam bi mu tëdd mu ngi nekk ci Tayba mooy ci Màkka mu nekk aussi xurum bi nga xamante ni moom la ñu ormal boobu turam tamit nekk tur bu tedd bu ñu xaree ci tur yi gën a tedd mooy Muhammad ñu jëlee ko ci Mahmoud mooy aji sant ji wax tur bi wa ida wadaxtihi sammihi Muhammadan faktu min amra ay kitmaani mu ne wa haadihi burdatul muxtaari xad xutimat walhamdulillahi fi batin wa fi xatami lii téere bi ñu doon way day burdu la boo xamante ni burdu Muhammad sallallahu alayhi wasallam burdu yonente bi la wala nga ne burdu bu ñu tànn la xat xutimaat ah léegi nag matal nañ ko maanaam jàng nañ fukki bunt yi walhamdulillahi fi batin wa fi xatami ñu ngi sant yàlla bu baax ci depuis bi ñu commencé waaye aussi ñu ngi sant yàlla bu baax ci tey li nga xamante ni tey la ñu eggale abyaatuhaa qad atat sittina ma miatin farij biha karbana ya waasi alkarami bëyt bëyt yi nga xamante ni moom la imam Buxaari yëpp soo compté mu ngi tolloog 160 bëyt ñu ngi lay ñaan ci barke 160 yooyu nga wuññil nit ku nekk ak njàqare bi mu am ak soxla gi mu am ak aaj bu mu am ak lu mu mën toll ñu ngi ñaan ci barke 160 bayit yooyu nga daal di ciy faj aajam di ci ñàkkareem kon ci bun ci ci tënk bu gàtt li mooy bunt bi ñu ngi ci jéggal bu baax a baax ci yàq yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu